ngir ngay man jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma Production da ngay Je suis ñu bind sabonné bo noppé tek ci cloche bi Xidma Production la scène du mouridisme lui vrai moy magal gi di ci joge fi dem ci àll bi ñëw bu delsé na ngeen ma ko na ngeen ma santale fonkal ma bis bi lool su joté ñaata million fay daje ñaata nak la ñuy rey ñaata xar la ñuy rey ñaata bëy la ñuy rey ñaata ganar la ñuy rey ñaata ci am ay million nga xamné magal màggal gi koomu réew mi la ti ba xaadima rasul dem mom rek la woon waaye bi ñam bi sottee moo gaay la nga leen bàyyi ñuy añ ñu ne ko noo loo loo xam ci ñi la doon xeex mu ne afawtu ah, anil aadaayi turam képp ku mas a doon sama noon baal naa la ñu ne ko lu tax mu ne li ma yàlla defal te ma bokk ñoom yàlla yàlla teralee ma nii ma di leen toroxal baa may dal seen kaw kon damay fàtte ne yàllaa leen bind ki ma baaxal moo leen bonal kon ne jéggal naa leen ndax kooku loolu mooy àdduna soxla si gis nga soo nekkatee ci dara isa kunta fii amrin fa kun fii alimi abi talib ba ko wax nee loo nekkati na la ñor ti nga moytu gaa yi ñi lay sànni xeer ak jóori bant ak ñi cabax-cabaxal ak bu leen faale mooy tax nga yegg mooy tax nga yegg soo ko deful doo yegg mais ne fii di stressé woo di ay def ay suseeg ay yëfu tappale yooyu toog def nii neen waaw ah, soxna si ñu neen waaw ah, soxna loolu de ne la ni doo liggéey si tey nga ne tey du ma mën a ñëw sama yaram ay métti fekk yaram yu méttiwul far wala woo jotu ko far walla jotul walla jotul jëkkëram mu dof li ci gën a garaaw nag boîte vocale la jot moo gën a dof loolu mu ne nii rek daal di yóotuwaat téléphone kon composé waat jotaan maa mi ki war na ma xam nga lu xelam ni njëkk a dem mëti la njëkkoon a bëgg wóor na ma ci la dellu yaa ñaaw xel jàppal ne daa nekk fu amul réseau njor amal njortu bu rafet rek yow ba ba ngay gis contraire bi nit ku baax day am njortu bu rafet ñu koo dégg muy wax ci nit lu bon njortam la waxe koo dégg muy wax ci nit lu baax njortam la waxe nit bu xelam rafeté lu rafet lay wax su xelam ñaawé lu ñaaw lay wax waye nit ku ne la mako ko xam ne ko da ngay fen nit mom rek ka xam bopam ak boromam man wulli wuma ma amal amalul njeri non non ndax la muy def bopam la intéressé wuyu buma amal njeri mako gëna wuyu buma amal njeri momako gënal way way señ bi ko lay jappalé sa kër mo la gënal ko la ci jappalé wul ti délu doori ayé rek aaya kese da lay rey motax moo tax illaa tuubaa rek illaa tuubaa rek ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma Production da ngay beus fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi Production, la scène du mouridisme.